and I build it up brick by brick. This is You're watching Gambian Talents TV, you know. One thing, problems. Take it from a kid. honey faman hani aja. i am getting all roli sol man muka hani fen tuwaleja albeni la ye duwaleja al se jabur jam ndul ka bi freedom of space te buwaleja duwal be la duwa du buwal be buwa eh alla bolan esti gambian dream brikama boyo ndul kan na leki is all about gambian talent tv tune in direct ala jibe stay tuned mimbe kirin gambia mimbe kirin gambia bantala gambia luo this is abdul karim wagan and right now you're tuned into gambia talents tv numero uno online tv If the youth of this country are lazy what are you doing to change the status quo? Since they constitute 50% of the country's population, the youth play a major role in running the affairs of the country, from sports to politics, education, entrepreneurship, entertainment, health, religion, science. The Youth Bantaba is a platform designed to talk about issues affecting us as well as to celebrate the youth. Join me, Aisa Tukoli, every Friday from 12 to 1 p.m. on Gambian Talents TV. Youth Bantaba Show, celebrating youth of the Gambia. ñëw fii si bunti police station bi yëg ngeen ne Rambo Jatta kooku lañ oo tey si police bi pour laajte ko a leen fàttalee ko ñu ne am na ay kàddu yoo xam ne yooyu la jëmale si kaw Madi Jobaate ak kii di Ñang Njaay soo loolu tax na ba ñoo ñu clamé ko fii si police bi soo fu mu nekk nii tey police yi woo nañ ko fii tey pour mu ñëw ñu jox ko ay laajte soo fu mu nekk nii si loolu lañ nekk nii fii Gambia Talents Seet Tidiane Fall toppalañ I am Honorable Abdoulaye la mu la indi li ma the issue of APRC moo ma particularly our first deputy party leader Rambo Jatta we understand that he was called at the police headquarters which I believe that uh, the operation the uh, police is not aware the inspector general of police is not aware so uh, it seems to me that it's something like uh, uh, witch hunt which is going on, and uh, particularly, you know, directed to the uh, APRC party, which I believe is not right. This is, uh, we are politicians. Anything that is said, you know, on a political platform, you understand, I don't think that uh, it should be, the police should be involved. And, uh, you know, so many things are happening. And uh, there are so many other political parties, you know, some of them, most of them, you know, are uh, inciting violence and all sorts of things, and we are aware, and they have never been called for questioning or whatever. So uh, you said that uh, we should relate, you know, this interview in Wolof. The reason I'm just giving you a synopsis of the whole issue. Then I will come into the world of language. Yeah, so can you please tell me uh, how did you uh, know uh, that uh, the, uh, the IGP and the other officials that you mentioned their name are, did not, are not aware of uh, this call for Rambo to come and answer to the police station? I am sure because I know. I know if you right now ask the Inspector General of Police or the or the uh, you know or the operation or the police operation, they will tell you they are not aware. So I don't know whether it's serious crime or I don't know where. Yeah, I just want to know how did you know uh, that he was not? Uh, what signs? What what make you believe that the IGP was not aware of this? I know, because I know how it goes. Because of uh, there are you know there are very uh, you know most of these are uh, most of these officers, most of them belongs to belongs to different parties. And uh, when it comes to you know operation of police, we are all Gambians. I think uh, at least there shouldn't be you know there shouldn't be a political pattern. You know there you know there shouldn't be any political interest. It should be at least they should be neutral. You understand, and leave their you know you know and leave their political uh, you know um, uh, you know affiliation aside. You know and deal with the you know um, uh, and deal with the issue you understand, neutrally. This what, is you uh, what do you think that is the reason they call him here to come and answer? No, is the, you know, my understanding is, you know, uh, is, you know, it concerns one Madi Jobate, a human rights activist. You understand? That maybe a statement that he uttered or what. You know, that's why he was called, you know, for questioning or whatever. And I, you know, and I believe that is to, you know, this is not the first time. It started with me. It started with me and then they, you know, and then, you know, and then, you know, there are, you know, you know, our other militants, like Samai, you understand? You know, most of them, these things are happening, you know, and it's very rampant, you know. When, you know, when it comes with APRC, it's very rampant. And we don't, you know, and most of, you know, there are other political parties like the UDP, you know, which are, you know, they are very, you know, how would I say it, arrogant or whatever and they have never been called. They have never been called. They have never been called for questioning. Did you give us any major incident that involved the UDP that... Uh... Most of their supporters. We had Bakari Tarawale incited violence, talking about let them burn the marketplaces. And, uh, and we have seen the Bakche market has been burned, Birkama market, Bakau market, you know, and all these things happened. And, you know, and none of them have been called. None of them have been called for questioning and most of you know and most of our supporters like Usamai, you know people that are at the diaspora sue him from there you know providing a power of Anthony you know for people to represent them you know likewise you know with uh, you know Bakari Tarawale and others you know and there are so many of their militants that are you know insulting the president insulting everybody you know and nothing has been done about it so we feel that this is a selective justice it's not right it's not right. We've, we've also heard that the government has. Okay, they said they are waiting for you. Maybe we'll. Okay, okay, just to wrap up, you know, when we're dealing with policies, we have our spokesperson, our deputy spokesperson. Yes. You know, they are the very people that could answer to most of these questions. You know, yeah, okay, but Rambo, the uh, the guy who is particular, is here, so you can move on and then have an, you know, have a word with him. Ah, Nkai for ah, Alhamdulillah. Identified. Identified. Um, General Sheka Baiti. Yes, yes, yes. Uh, nata about na boss la kuwala jang kabri yang kumandina headquarters iko police le ya kumandina so wala tin nan nata nan jang pour kana ala fenko nying aten yeah but alhamdulillah ala kairo keje so mba ala tentula mba APRC militant sol be tentula mbe jayla dal inshallah anin journalist sol munul fanam bi jambal be tentula mbal jayla kayra ku yewol yewol tentula men ah about because uh, mo jemali min expect no ani min nata ke uh, is different wo mo ala tentu balet because dol bije wol yamiral nun ko komin um, ni boss futata nan jay ba mutalal but ala man nake ah, bange mo lefa be diam ko yankuba touré la court case be mo ne fonu mo lewro euh yankuba touré <laughs> yankuba touré o kay ala court case nyim fana euh mbamim fola noje wala nyinti ko ntolla jeroto dal nga jele ko ye sembola jaya kan ha ye sembola jaya kan because yalon um, ba tambe do fana ya falen ako uh, aba uh, kutandila yankuba ture la mi yalon ko uh, mo man uh, mo nana man wo ko uh, nyinje gambia kono jang so andon tol ngaje nyami andon still now uh, wo ko nyin uh, ba tambe do ba wala no makan still now andon wonin luwa nyi silo nyi manta so um, bamim fanam fola wala nyintiko yankuba ture la uh, ala detail ka ka detail mile to anin luwa nyim manta because minati nanin luwa nyim manta ntol nga jele ko iba sembola jay kan yankuba ture kan andung di whole world yal nako iba sembola jay kan yankuba ture kan so um, yankuba ture la ko dal uh, samim fono je wala nyinti dal um, a ah, muta damin dala uh, still now aya muta je nga je funan ko report o findira masa ko sa pour ya jamela bagasol stop follow pour ka wafi irbe muna funa ha ya ya jamela bagasol uh, ah, as far as um el, e, eh, iba min nyine kanu ma sota bulu uh, ah, to nyalom because ntol fana nga min je wala nyinti ko um itol always iba ya jamela no maka mo kun killing iba wala no maka ando adama mantara num man sakunda kon so mo jama laba do ko ka ke kanu ya jame koto but imam wol be ma iman hanimo kilimma only one person e bo wala noma kan andun be nga jele uh, be mu dindi ngol leti nu 81 eh, but min tamata jang be nga jele but ibuka wo noma only babili man sa sadore bo wala noma kan mo kun kilin gambia be ya jele be nga lo ne min batama kan ando anin luwa mantara ta kan ebe eh, muna la uh, ah, banko la kudo sa banko kata nyame ha banko kata nyame wo because mbenga ming expect no ani min nga minje is different is different so can you be elaborate on that ah <laughs> ede muna expect no ede muna expect no defo ko yalon tol nga ming expect no about uh, banko do ko to no ani nata nga minje ah uh, is quite different ha uh, dolba mune jeka sate mune jeka fo gambia bankoka? because uh, baluo baluo baluwo aman easy side aman easy definitely aman easy be ngalon the whole world ya jele gambia kata ñamin side gambia kabrin uh, since 94 up to 2016 uh, benga gambia janong abita kan But coming in 2017, up to now, Gambia signed. Ngajamuza kunda fune ya declare kode another state of emergency for another 21 days. Uh, sa ah, ito ko banko ba kolyari ne saying ito muna fune la mulewa. Ah, okay. Ndol sa min fono walam nyintu ko. Foko mansa kunda dani dro ye mol makoy. As far as alata kola nala kila kol be betol lobul. So ni tol ye woke e nyanta funtila fanan ka mol makoy. Ibaje lako ni ni ake drong. banko sitano ñato um, so <laughs> ama easy dal <laughs> yeah yeah yeah okay thank you sir. ah okay assalamu alaikum wa alaikum salam ah, da dina dolu ndom mustafa rek diallo diallo diallo okay mu ne da si jam ah nata molo jibe jen bi balo balo ko ya balo ko leeta nata fer fer ba ñul jam ah balo ah ah ay nata balo ko wolta jam ah okay so da todu ndom ah so da number du 3 318 Uh, eh, not number seven two eight triple one nine. Sadi ke balu nunyadi. Ah, alhamdulillah Allah ta kola ani man sakunda ni wazo de maro munke. Ha. Inte mon ka balu wala. Bari man sakunda ba tra kanne. Ni mo to nya fi final fola. Ha ba tra kanne kende ka fan kende. Over. Nga to nya fo nyoy. Abedi ken wala sinya kling. Bari ba tra kanne. Ha. Ka baraka bay. Ah, bro na def. Man miki lañ ma lay waye. waaw ah, yow la mu la indi fii. waaw dama ñëw pour soo solidarité si député parti leader bi Ousmane Rambo Diatta waaw APRC seen député parti leader bi Ousmane Rambo Diatta. la nga séntu pour am si loolu noonu pour ñëw finish. waaw di pour to the police ak yeneen Finistafis I'm going to call them Finistafis they are not activists they are so called activists because soo bàyyi xel ñoom ñu isi report bii nii ñoom ñoo njëkk inside violence ñoom ñoo njëkk supreme party leader jàmbur la muy APRC so in soo ko insulté rek you are provoking a party a, a, a political party you understand so it is wrong those people jëluñ legal actions yow ñu ñu threaten la du threaten sax dañ la provoque yow tamit yow nga dem di report sa bopp si police soo yan façon en ah, provocation lañ def yaa jëme wala yan threat lañ ko. Yang Ndiaye si posam bi si posam bi moom Facebook posam bi mu ne Yaya Jammeh su ñëwee Gambia fii if the courts didn't take actions. the nation will take action and he is going to be subjected to mob justice. When he either come in handcuffs or coffin. So what Loom means alone, mob justice, you means that either some people, certain people, individuals, you know, door la bañ la rey ñu jam la xeer ñu rey la oo ñu gor la jasi, something like that loolu la rek gis tam ah, government bi saying that they should put a stop to ah, bagage yi ñoo jaay bagage yi yaa jame nga wax it's too late during di during the commission of inquiry si process bi si boppam balaa recommendation ak findings yi di jee si la gaa yi njëkkaan lifin jaay bagage yi yaay jëme yëpp soo demee Kanilai fu mu nekk nii I have lot of evidence in my phone here some of uh, his uh, luxury cars yaa ngi koo gis si certain individuals moom Njang Njaay muy bari wax nii mu ne moom jëndut moto yaay jëme mu ne yaay jëme xaalis si dëkk bu mu sàcca jëndee ko moto moto boobu la jënda yow ku sàcca mu ñëw jaay la yow nga jënda loolu yow tam doo sàcca Njang Njaay tamit let's call a spade a sa sàcc la so xam nga rek comme ni lay am personal grievance against the former president they will not want to see anything positive about the president njang ñaay every post am soo ko bàyyee rek ka la si former president jam ba pare ñu togon ci commission bi ami benn suula si bopam yo ñu involve la si yo lot of scandals si nga xamante yo yow bokk nga fa yo naka nga toogee di investigate sàcc dina investigate sàcc so lool mo xappun ci Gambie bi fu mu nekk nii yaa jëmee dafa melni kuma mu am ndey ak mu amul ndey rek la but the truth is bitter yooyu moo nekk sa kàddu mujj bi ko dégg nañu ne Yankuba Touré tam ah, na tey si court house bi. waaw Yankuba Touré gars yi ngay xool rek am nga soo seetlee rek comme baatam bi rek la di most corrupt injustice minister injustice laa ko ooyee he is injustice minister because all the time su waxee rek dafaa yaxa lan la he will teach Yankuba Touré a lesson sif as is guilty na na court yi ñu doxal seen doxal but moom daf ne he is going to teach him a lesson tey moo nekkoon ah, ah, judgment bi pour rule <coughs> no case submission. But then go Ajana to only 26. I understand. This is not about supporting APRC or supporting the former president, but telling the truth. moom baatam bi du fii la taxaw mu wax ne président ngi toog ministre yëpp ngi toog ba pare lu ma jaxal sax ministre yi ñoom ñu intellectuals lañ dañ jàng amee degrees baatam bi du wax from that blunder statement gars yi di tàccu make no mistakes loolu la wax makes no mistake pending the uh, recommendation and the finding If former President Jammeh happened to come back to this country, he will be arrested immediately and be prosecuted in serious hunger. So you you you pre-empt the outcome of the TRC already. You no need for you to wait for the recommendation of the TRC or wait for the findings of the TRC because you want if former President Jammeh happens to come back, even today, if former President Jammeh happens to come back to this country, but the government do have the recommendation of the TRC, the findings of the TRC. He's going to arrest the former president. So this is not politically dafa I am matured this is our security because former president no matter what he has a lot of supporters in this country nobody can deny that just deputy party leader bi moom ñu you see the number of people that came here to show solidarity what of the president himself so dafa am have the security wise you should not even say it mu ngi involve boppam a lot of corruptions because alali ya jame bi moom ñoom we have record of everything ñoom i sen seen boppa ñoom ñoo ko jaayante foofu sen biir some of these ah, xam nga soko aktivis ñu nekk di wax ni di brak ñom ñoo jëna alal yaay jame bi tay di wax eh, la nga bëgg wax lo xam man laajuma la wa luma bëgg wax rek mo nekk president baro let him be bold gis nga any country soko ko lead yalla moo dee tànn président te man personally I accepted the leadership of President Adama baro and I wish him well but comme leadership sometimes da nga emphasize courage xam nga emphasize boldness because why President Barroso ko said ba said, nekkul ne ko saga o dama ko tiitil ba dafa xaw lomba. sulomba dafa am yenen action si yoo xam daf ko dee wara a jël gis nga affaire yi uh, Batambedu ko ñu ben action Ben action mu wara jël mo nekk gis nga affaire yi uh, Batambedu du bini. warut ta bay dara mu sedda waroon na constitute waroon na constitute uh, at least a commission of inquiry pour ñu find out aleli yaay jame bii nii ak du corruption yi nekkati def ni. because there are a lot of corruption going on in different ministries different lolu nekkul lo xam xam nga comme speculation la or whatsoever loolu dafa mu ngi happen so accusé di former president ne dafa corruption yow sa government bi ñëw corruption xoolal moom Manka Mankunda soo fa demee huit twenty two years yaa jame rek këram rek moo develop ku xam ku fa dem dina xam loolu noonu nga ñëw euh, lu mu fa bàyyi ay incomplete buildings ñoo fa nekk even juma bu mu xam ne foofu la bill Kanilai sa parewut yow Adama Barrow within three years mu war na bill na ñaari manson Manka Mankunda di bill juma foofu noonu wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi ahadan jumaa néeg moom néegi yàlla loolu moom ku nekk war na ko ba ifin su nekk ne ñoom gëm nañ yàlla kan laa jumaa bi dañ ko doon complete parce que ñun dee ko war a rafetal Gambia ñëpp ko bokka gis nga yàlla si boppam dañ ko dee tooñ sax mu jégal ñu afita dañ ko tooñ mu jégal ñu yaa jamee nekkul malayka oo wat doomu aadama la dafa make mistake dafa def te xam naa ne fu mu nekk écotour jine some of the things yi nga xamante moom óor na ne moo ko def regret na ko am 100 percent sure so ñu ñoo war a find suñu xaat si ñu fogi fante ñu rek fone Yaya Jammeh loola def loola moo mën a regret Yaya Jammeh xam nga comme man du ma mën a wax ne lii la def because moom nekku moom foo xam ne foofu la nekk di make a dunda perfect li nga ne def loo error that's that's practically impossible you believe that he also have nga rek comme uh, sometimes uh, am na audio bu ma déggoon xaw ma vidéo bu ma déggoon mu ngi wax ne xam nga I cannot remember something like am na lu mu waxoon I cannot remember but naa ne boobu error la xam nga na slip uh, of the tongue la or what but boo xam naa ne boobu error la from the side waaw am na wax bu mu wax I cannot remember actually I cannot wax bu mu wax boobu. lan la concerne lu mu ko sànnoon su fanaan affaire yi la julli yi. Ah, bu ma ne fii dëkk bi moom maa ko kenn du fi julli. waaw xam nga wax yi noonu moom sometimes daf lay baax nga ko doon entertain it because ñu bari loolu lañ noonu yi mu doon wax noonu. ah ok so miin nañ wax loolu noonu ko miinu ko sax. Ah, yaa jame si ko bi ko bi ñuy ah, sometimes you don't have to follow these laws or the constitution to stabilize the country sometimes you use your own conscience so loolu la doon doxale pour mun a stabiliser dëkk bi that is the difference between président Barrow fu mu nekk nii barki dee ma police yi dañ leen riite 22 years loolu mos happen mos happen so sometimes Yahya Jammeh is very regimented when it comes to security so loolu ni ko jox crédit with that am na yeneen certain things yoo xam ne ko doon def pour to maintain the peace and stability of this country. Ah, ah. Ami Jaata. Ami lan la indi fii tey. Ah, man tey awju billahi mina seytaani rajim bismillahi alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil ah, li ma fi indi tey dama ñëw kooti Yankuba Touré ma am information ne dañ fi o Rambo Jatta loolu moo ma indi fii ma jógee ci kooti Yankuba Touré ma ne xaaral ma ñëw ci kooti Rambo dañ ko o xaw ma luñ ko o moo tax ñun militant APRC la dañ ñëw pour nekk gannaawam déglu lan lañ ko ooyee lii moo ma fi indi. comme ah, ah, ko fi. suñ parti militants yi ñoo ma kool dafa am ku ma kool ne ma ñu ne Yanku ah, Rambo Jatta tey dafa war a dem Banjul dañ ko oo ma ne ko man maa ngi nii Banjul ci kooti Yankuba Touré waaye su ma fa jógee rek naa fa dem bu soobee yàlla. amoo wax na lu tax ñu oo ko fi. déedéet li tax ñu oo ko déedéet. sa ñëw bi fii la nga foog ne loolu nga si a njëriñ la si am. waaw because dama nekk doomi APRC yaa jàmme jaral ma lu nekk fu moo dee falaay dee te doomi APRC la since 1994 loolu moo tax nekku fii waaye képp koo xam ne mu ngi taxaw si tànki yaa jàmme fii fun mun di oote dinañ leen toppa dañu wara a bàyyi suñ jiit yi ñi nga xamante ne ñu leen di oo saa yu nekk kenn munta nekk Europe nga ne danga samoon fi nit loolu xanaa si luwaa baroo la am man si luwaa baroo laa ko gis loolu musu fee am dangaa oo nit koo xamante ne yaa ngi fii ngeen am problème mu ngi fii waaye ku nekk Europe kooku am ku ko taxawal fii di ko samoon ci ban yoon yéen mi nekk jonali si maa ngi leen di laaj ndax loolu yoon la wala du yoon parce que loolu nekkul ci benn loi man dina ama yow problème yaa ngi fi maa ngi fii ñu dajee ci waxeekaay bi waaye yow yaa ngi Europe nga yóbbu ma police nga yónni ci sa famille nit mu ñëw taxawal la fi loolu fuñ ko wéer. lan nga foog ne loolu moo tax ñu ooki man dara leeru ma ci moo tax ma ñëw ma bugg a xam lan moo tax waaw dara leeru ma ci waaye bugg naa koo xam tey lan moo tax ñu oo Rambo. léegi yow lan nga bugg a wax loo xam ne laajuma la ko. man li ma bugg wax. si mbiri bagaas yaa jàmme comme waxkat bu njëkk bi num ko waxee nguur gi dañu war a xam ne tey mooy seen bés ëllëg keneen la yaa jàmme bagaasam bala muy génn fi agirmen moo fi amoon ne ñoom peppi morso yaa jàmme sa soxlawuñ ko nguur gi loolu lañu wax waaye ñu gis ñun ñëpp kenn réeréewul fi Gambia ku képp koo xamante ne doomi Gambian nga yaa ngi fii li nekk di dox si bagage yaa jàmme kenn réeréew ko ñëpp a ko yëg nguur gi di jël bagage yaa jàmme ñu ngee dem Jine Bisaaw mu ngee dem Dakar mu ngee dem Mali foo xalaat bagage yaa jàmme yóbbu nañ ko fa di ko jaay ñi nga xamante ne tam ñu ngi toog si kër gi yaa jàmme kër yi nga xamante ne daf ko jënda ci nit jël fa mbokkaam yi teg leen fa ñu dem génnee ñooñu foofu jël kër yi di ko jaay loolu yëpp liggéey tambee du la minister of justice moo nekk di liggéey loolu ndax loolu mu ci luwa yow nga yóbbu nit ki ah, naka lañ ko waxaati commission yow commission boobu xaajuta jeex sax yow nga commencé di jaay bagage yi si du béy du xar du nag ñii dañ xiif nguuri jawara moo ñëw ñu xiif rek a dajaloo nekk ci boppi nguur gi fi mu nekk ku nekk yaa ngi jàngalante sampa sampa mansong barki dem boo njaay rek laa gis këri Adama Barrow ah Mankamankounda ñëpp ko gis si Facebook ak WhatsApp ki liggéey 22 yow nga ne poti maalo sax waru am ak yow mi liggéey 3 years and a yow ngay sampa looloog loolu fuñ ko wér ak fan lañ ko teg dama bugg a justice si ñiy dogal justice nañ leen di dogal justice si dëgga nañ ko jaarale si yoon buñ gis ne yaa jàmme nekku fii parti militant sami ñi ko fee xaar te yàlla tax dañ le a def lu leen ne waaye yàlla nelawut gomantuwut ba muy nelaw ñu ngi wax Adama Barrow nag bagaasi yaa jàmme yu xam ne moom ak liggéey katam yi yëpp jël nañ ko di ko jaay nañ ko fexe ñu deloo ko APRC ñun dañ am suñ banque boppa dañ dee teg suñ njiit yi dañ dee teg ku nekk dañ dee sasante li nga war a génne ñu ubbi account pour développer parti bi luñ soxla soxlawuñ yaa jaame ñu wax ko ne may ñu lii dañ koo jëlee ci suñ boppa ñu liggéey suñ boppa waaye banque boobu sa account banque boobu sa dañ koo frise ñu ne yaa jàmme moo ko moom lan moo leen si óor ne yaa jàmme moo ko moom ban évident moo leen won ne yaa jàmme moo ko moom jaay doole ñu ne yaa jàmme moo daan jaay fi doole daf laa tiyee rek neex la dem teg la benn pala waaye li nekk si biiri nguur gi tey gisuma ko fenta gisuma ko si benn nguur dañoo jaay doole mu ngi nii tey laa jógee kooti yankuba touré ñoom seen witness yi ñëpp a wax kenn waxu fa ne yankuba touré moo rey koroo siisee kenn waxu ko léegi bañ nañoo bàyyi Yankuba Touré ñu ngi teg seen tànka foofu Tambédou mu ngi def lu ko ne waaye yàllaa ko ëppa fii kenn munu fee tëj kenn kenn munu fee def kenn ñun ñëpp ay doomi Gambien lañ doo wax ne danga toog si boppa bi ngay def lu la neex xanaa mu neex la xanaa xamulool waay waaye boo xamee lu waa ku la fi yóbbu bugg a def naka sudu noonu di ko jaarale si yoon nañ doxal dëgga liñ doon wax si Yaya Jammeh li fi raw la ñuy nekk di ko def Yaya Jammeh lim fi munal doomi Gambia duñ fi musa am benn doomi Gambia ku mel ni Yaya Jammeh ku leen koo defal duñ ko am li tax ñu bañ ko lu mu doona doomi joolaa moo tax ñu bañ ko te loolu dañ koo bañ suñ ko bañee Yaya Jammeh ñi ko fi bugga ñoo raw ñi ko bañ lu ñu wax yépp nga bugg a dem Europe nga dem uti kayit pour nekk Europe nga dem rek nga ne Yaya Jammeh moo ma bugg rek moo tax ma daw si fii dama bugg a ngeen dimbale ma si kay yooyu yëpp wax nañ ko fi waaye li ma gën a surprise journaliste yi xanaa government bi nu moo nekkee di dox guddee bëccëg gisu leen ko xanaa gisu ko waaye doo ko dégg kenn du ko wax waaye xaaral ñu ne si moo fi toj kaas billaahi walaay di ngeen daw ba ngeen di faxastalu si yoon bi si nag dafa dunda dafa nekk fi kenn munalu ko dara li ngeen di lu ñoo def véeg la nekk yëpp ngelew la dinañ fi dunda dinañ fi naan dinañ fi lekka te kenn munalu ñu dara si njiiti ah, Fabakary Tombong Jatta ak ñi ko toppa yëpp APRC yaradewuñ dañu yaru am respect tey su njiit yi ñooñu ko won Babili Mansa moo ko wonee njiit yi fi nekk ñu nekk seen ginnaaw ñu ne kenn du ñu wax loo xamante ne dinañ ko def duñ ko rek duñ si jaar waaye fi mu nekk ni puus si maraaj la em fu ñu war a em dinañ fa em ñun dañu puus dañu doylu léegi kenn du ñu jaay naka sudu noonu ñu bàyyee la ko boo waxee téeméer ñu ne la hundred thousand waa APRC mu nekk nii mayewuñ kenn. meetar dañu soona ñun Gambien lañ maltraite biñ nekk di def léegi si suñ njiit pour lan kan mooy nekk ay rob ngay joobu nit fi police loolu fan lañ ko mu musa man de si nguuri laa ko gis. dafa mel ni comme ah, lu waral kii nii Rambo ñu ko oofi nii. waaw ñu ne dafa jotee kennan xaw ma daan mbir mi nakalam kooku samoon ko fii oote fii si police yi ba pare dama aida police yi nañ def seen liggéey ñu bàyyi farfarlu bi. nañ def seen liggéey ñu jub nañ jub de nguur gi mu ngi si yoon mu ngi waaj daw seen yaa ngi taxaw si tefes bi fale di leen xaar baabili man sa tey mu dugg si fii bu soobee yàlla incha allah li ñoo wax ne su fi ñëwee dañ ko téye ñu yóbbu ko kon bi ka waxkat boobu wax bee ko neex xëj na dafa lekk ba suur amul lu mu war a wax mu loolu la ma baabili man sa tegee tànkaam airport bi man dama gisut góor bi nekk si nguur gi ki ko war a téye si loxo ne danga koo yóbbu mile two wala danga koo yóbbu police nekkut ci nguur gi man Ami Jaata gisuma ko dama ko gisul dañoo waxantu ñun APRC duñ waxantu dañoo jëf babil man sa ñu ko yaree boo nekkee ci sa dëgga doo ragal doo tiit doo buuse fi nga taxaw fa ngay taxaw waaye may xamal Adama Barrow na seet nguuram gi ministre yi na leen seet ñu ngee doxal lu la neex nga def ko te lii xew ci doomi si daf ko dee dégga moo ko waxal boppam li fee xew daf ko dee yëg kon dafa mel ni li nekk di dem si doomi APRC neex na ko tey la gis xamul luy ñëw ëllëg billahi wallahi nallahi yaa Jammeh moom State House bi dina ci toog bu soobee yàlla maa la ko wax ba si boo demee nga bind ko yéen journaliste yi. jërëjëf. Ama Ndiaye noonu as ànd bu yàlla. ànd bu yàlla fii ah Yankha la mën a indi fii. man dama ñëw pour Rambo Jatta because dañ ko pour correction ko loolu moo tax ma ñëw because am APRC minister ma ñëw pour topp ko. Ah, lan ko Ah, am na jigéen ñu nga xam ne dañ ko tuuma loolu lañ ko ooyee pour correction ko loolu moo tax ñun tam ñu mooy suñu tànk nit nit ki soo bokkee mu baanee su amee naxaar da ngeen ko war a bokk moo tax ñu ñëw tey. lan lañ ko tuuma. am ah, na soo waaye dama ko déggal loolu moo tax man tam ma ñëw waaw. sa ñëw fii la nga fi bëgg a actif la nga foog ne loolu nga si ah, am. noonu pour lu ma ñëw fii tey dama ñëw pour déglu lan la gars yi war a wax ak ñu ñëw tëralee mbir mi. waaw nit léegi affaire bi dafa bari rek dafa bari torop picc bu jóg rek mu wax ku jóg rek mu wax léegi dafa doy lu nekk dafa am fu mu em waaw ñu seet naka la nag ñu dox si dégg bi rek waaw loolu la. comme ba façon dégg nga foog na lu lay war a dox. nekk si dégg rek ñu jox la dégg ku nekk su dégg ñu wax la ne du def loolu du yoon ñëpp mun a xam. waaw yëg nga nag nguur bi tamit démb ñu ngi joxe ah, ah, dogal ne fu mu nekk nii day war a ah, bàyyi di jaay bagages yi Yaya Jammeh. ñoom dañ leet pour def loolu sax. ndig ñoom bagaas yaa jame balaa ñu koo jaay foog naa nit ki balaa ngaa jaay bagaasam am da nga ko war a yóbbu koot nga am raaj si moom nga soone lii lu ma def suñ ko yóbbu suñ jëlee bagage yi jaay ko nga kisi kisi bagage am yi nga seet soo ko seetee nga xam na kii dee lu mu def am nañ njaay pour jël bagage sam yi ñu jël ñu jaay la waaye nit koo xam ne yow yóbbuwuloo ko koot nga jël bagaas yi nga jaay ko loolu naka la loolu daf ñu jaaxal man mii suma boppa loolu daf ma jaaxal ma ko déggee dama ko dee dégg yaa jame bagage am nii yaa jame bagage am nii man dew ma school ñaaw ñaaw waaye understand naa lu bari te xam naa yu bari lu nekk luwaa la luwaa moo war a dox dañ ko war a yóbbu ñu seet bagage am yi bu ñu demee commission defee yooyu suñ paree loolu ñu dem yóbbu ko koor suñ koor bi ñu seet lu bi lu ñu wax rek ñu def loolu bu dee dañ ko war a jaay ñu jaay waaye loo xam ne leen yóbbu leen ko koor leen dara ngeen rek ngeen jël bagage yi ko jaay ñoom pour ñu stop jaay bagage am bi loolu dafa lee dañ ko war a def bu yaaga waaw ok jërëjëf thank you so much you're welcome it's illegal it violates the law it has gone against the Gambian constitution and now uh, how can you assign criminals to investigate a criminal? Because they said President Jammeh is a criminal, and now you brought in criminals to investigate him. Whilst investigating him, they were stealing and selling his properties. So now which is which? But they were selling it, and now the Court of Appeal is saying no. Now, but what what, about, what about the ones they sold during the commission? What about those ones? How are they going to be able to retrieve them? No, it's not music. We, we know that it, it, the music has always been uh, always been there. We were just dancing slowly, but now we are dancing openly. So what next from the APRC? Uh, that is coming soon. now this government is going to see our real side. We've been we've been patient for so long. Pardon? No, that yeah, wam to in an audio message. And on telling Alatema uh, may threaten, I, I did not threaten them, honestly speaking. Uh, uh, audio was released on the 14th. keta ñanjay ya sefala facebook leko president jame binajang either in handcuff or uh, in uh, in a coffin for the case kono what is more threatening than that ala interview do fanan president jame was going to come in a body bag So now it, it leaves us to wonder whether um, Nyanja is not working with international terrorists to assassinate President Jammeh. So ngaman tulen da tel tala seriously dan dan tele kuma kama dorong. Bali yalo nyul tapete olum dara bela. Ena uh, mba tandile ko ni man pare ngi mai fatana. Kadu suru ko ni kai komo jibe bula akoto ya fo komo itenkungu. But anytime they come out, say rubbish against our president, we'll, get, we'll, we'll definitely get to them. Okay. So, uh, The police, the serious uh, crime unit of the Gambia Police Force. They just, uh, complaint not received, so definitely they have to investigate. It's in line. Yes. Alabara. Alhamdulillah. Gelin. g e l a m ü n a l e y k ü m The trap where you pre empire and I build it up brick by brick. This is this. You're watching Gambian Talents TV, you know. Multi problems. Take it from a kid. Mimfama hanifen tuwaeja. I'm getting it all his soul man. Muka hanifen tuwaleja. I'll be need lap. Ye duwaleja. I'll say jabur jam. Ndulka be the of space te buwaleja. Duwal bela dua duwa kubalɓe eh, allah leki is all about gambian talent tv tune in direct ala stay tuned min gambia min gambia bantala gambia luo this is abdoukarim wagan fay and right now you're tuned into gambia talents tv numero